Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. alarba benn fan ci weeru mai doon bis bu ñuy màggal liggéey fii ci Sénégal ñenn ñi duñ ko liggéey ndax dañ koy noppalu ñeneen ñi dañu koy liggéey ndax jàpp nañu ni bu ñu toogee dara du dox ci seen boor muy secteur informel fii ci diwaanu Difonsé ñu ngi ñuy xamal ni ñoom dañ koy liggéey ndax dëkk bi dafa metti te bu ñu toogee dina metti lool ñu ngi woo tamit nguur gi mu gën a jàppale waaye liggéeykat yi gën a yokk seen condition de travail gën a bàyyi xel liggéeykat yi ci réew mi ñu ngi wax tamit ci wàllum liggéey jëmale ko ci patron ak employé ñu leen di gën a respecté gën a favoriser seen ay salaire gën leen jox gëdd bis bi nag ñépp a ko xam ci férié waaye jamono ji fu mu toll nii ñépp a ngi yuuxu moo tax kenn toogatul ñépp dañ koy liggéey bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi ñu ngi ñuy xamal Cheikh Tidiane Thiaw waaw ah, premier mai bi mooy que ne dëkk bi doxagul daal dëkk bi xam nga doxul woon mais doxagul mais incha allahu rabi dina baax parce que sant bi nii gars yi ci liggéey lañ nekk quoi ñi nga xam ne nii maanaam xam nga ñoom ñoo war di embaucher gars yi comprendre wala des fois ñu jël la journal journalier nga nekk fa di liggéey duñ la embauché yooyu moo bëri ci dëkk bi loolu la ñu war a saytu nit fu muy liggéey bu fa defee six mois wala un an war na am embauchement mais Sénégal dañu bëri dangay liggéey ci benn entreprise nga nekk fa un an cinq ans mu leer ne ne miin nga ñu dàq indi benn ngaaka te nag ñi indi ay pulfuta lañ duñ doomu réew mi. dañuy dem jëli benn étranger ñëw di ko fay quarante mille yow sénégalais bi ñoom leer na bu leen jëlee dañu la fay cent cinquante mille wala cent mille mais dañuy dem indi benn étranger di ko fay soixante mille loolu du yoon ñun sénégalais yi ñun dañoo war a liggéey ñi nga xam ne nii nag ñoom ñoo yor seen entreprise di jël nit ñi dañ leen a embauché gars yi ci boppam di liggéey. boo retraité nga xam ne retraité nga boo demee ba mënatoo mënatoo mais dañ lay utiliser ba sa doolee di waaj a jeex ñu dàq la jëlaat beneen xale bu ndaw. condition travail Sénégal dañ ko war a yokku condition travail mooy que ne. milliardaires yi ñoo ngi fii di jël seen xaalis di ko may mbëri ubbi ñu société da ngay nekk ci gouvernement am ay milliards doo ubbi société jël suñu xaalis dem denc ko France comprendre di ko lekk ak say njaboot ndànk-ndànk milliardaires yi nekk ci dëkk bi ku ci nekk bu ubbee société buy liggéey dara sénégalais buy nekk fii di taxawaal ci mbedd du am mais dañoo jël seen xaalis denc ko gouvernement nag mënul lépp. wallahi joomaay fay bi ñu bëgg mu defar Sénégal mel ne France munul nekk day defar secteur yi secteur yi ci des du ko defar yàlla rek moom mënul defar lépp mais li ñu bëgg maanaam li nga xam ne ni moom la ñu bëggoon ba tax ñu fal joomaay ci la nekk di dox waxati nag taluñu leen ñi nga xam ne dañuy wax ñooñu ci Macky Sall la ñu woon quoi mais joomaay li nga xam ne moom tax ñu fal ko moom xam ne ne sax moom tegul boppam pale ñun ñoo ko fa teg ñun ñoo xeex suñuy rakk dee suñuy morom dee ñenn ñi dem nañ ci gaal gi dee nañ ñun nag ñun ñoo am maanaam xam nga courage u toog toog nañu xaar nañu ba ñu falu li ñu bëgg li nga xam ne nii moom la ñu bëgg mooy que ne ñu yokku maanaam liggéeyukaay booy dem ci entreprise yi liggéey jógee ci mbedd mi ñii nga xam ne nii maanaam ñoom ñoo nga xam ne ñoom ñoo yore dëkk bi comme ñoom ay Ousmane Sonko ay premier ministre li muy saytu baax na trop mais tamit travailleurs yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci sociétés yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suufa suufa suuf dañu xool seen i salaires yi ñu leen di fay da nekk ci co entreprise cinq ans deux ans wallaahi doo am embossement barke alxuraan loolu du yoon li nga xam ne ni nag man moom laa leen di ñaan mooy que ne nañu yokk bérébu liggéeykaay yi yokk entreprise yi nga xam ne nii maanaam tey jii manqué nañ ay employé ñu jéem a jël yenn boy yi nga xam ne jàng nañ ñu jugal leen fa ñi nga xam ne nii amuñu liggéey ñu jël leen ñu former leen wutal leen maanaam li nga xam ne nii maanaam formation bu ñu génnee am li ñuy liggéey ñun am nañu liggéey ñun mën ñun mën nañu ñu ñun ñuy defar ay faar dañuy defar ay feu arrière mais tey jii nii gisuñu ku ñu jàppale des fois nit soxla benn bagage nga dem ci magasin bi génnee ko ñëw jaay ko ko am ci dara comprendre ñun dañoo bëgg maanaam fi ñu ne ñu jóge foofu noonu moo waral ñu fal waa waaw maa ngi leen di fay. Xaadim fay. waaw waaw waaw di sant yàlla rek comme ni ko fekkee waaw mu nekk bés boo xam ne bésu feetu liggéeykat yëpp la ñu siy gërëm suñu borom fekkee ko tal ko di si ñaanal ñëpp jàmm képp kuy liggéeykat rek. ñu la si ñaanal sutura ak jàmm lépp li si bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ñëpp waaw li tax ma xëy nag mooy sant yàlla rek ah waaw boole naa sam bopp mais tamit xam nga dama sentir ne war naa xëy rek ma xëy quoi alhamdulilah rabi alamin ñuy sant yàlla bu baax. waaw condition de travail mooy comme d'habitude rek waaw sant yàlla ah. waaw ku nekk ak ni ngay sentiree sa bopp rek si li ngay liggéey quoi mais ñun moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax quoi waaw condition de travail Sénégal moom am na solo trop baax na lool. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax quoi. waaw gouvernement waaw comme gouvernement yi fi jaar yëpp indi nañ ay coppite yu bëri mais tamit si si ñun la des rek ñun liggéeykat yi waaw nit nga fonk si nga fonk li ngay def rek parce que li ngay def moom boo ko fonkee rek suñu borom dala siy jàppale quoi doo xaar ay gouvernement wala léeg waaw gouvernement bi ñun ñoo leen war a jàppale mais pas gouvernement bi du ñu dimbali waaw c'est ça aussi quoi. waaw waaw secteur formel bi boo xoolee mu ah mu ngi dox ah, comme ni secteur informel bi di dox ah. waaw ku nekk ni ngay sentir se liggéey rek waaw liggéeykat moom warul di jooy warul di jàmbat quoi parce que lépp mënul parfait tamit waaw fi nga toog nag moom da ngay yeewu di fa dem rek di toog di xaar suñu borom ñëw moom moo yor teraanga yi moo yor wërsëg amaan amaana fépp foo yàgg rek suñu borom dina lafa fekk si quoi soo gëmee li nga gëm quoi comme ñun ni ñuy liggéey nii ñu ngi sant yàlla parce que tamit mu ngi dox bu baax waaw client yaa ngi ñëw di jënd affaire yaa ngi joxe comme premier mai bi nii alhamdulilah rabi alamin comme tey boo toogoon sa li nga fi am tey doo ko am. sant yàlla yàlla mu affaire yaa ngi dox ko rab rabbi alamin mun ndongo laa tudd ñu gën ma xam ci bay Fall waaw sant yàlla bu baax julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur waaye sant Serigne Touba Khadim Rasoul waaw mu mel ni nag woo nga pël ci goxum soow ndax laaj nga ma question bu ma sawar a tontu premier mais bi dëgg la fête la boo xam ni fête du travail la yàlla dogal ñu waroon cee toog suñuy kër noppalu mais bala nga naan naam ne fa da ci réew moo xam ni dañ ko jox ay ndaw ndaw yu yàgg xeex yàgg bëgg Sénégal génn ci guddi gi nekkoon ba tax na 4 avril bi fi jàll sax kenn ku ne xam na ne ñoom feetewuñ ko dañ koo liggéey kon bu ñu génnee avril dugume kon fir je rek ma nga ca ma nga ca avril kon mais bi dañ ko war a liggéey moo tax ñu liggéey ko te gëm ni ñoom programme boobu ñu nu tegaloon dina continuer ñu ànd ak ñoom loolu nag fas yéene cee jaayante moo tax liggéeyunu moo tax ñu liggéey non condition yii ki nga xam ne moo fi nekkoon baaxul tane rek la def waaye gënul li gën nag mooy li nga xam ne doon nañ ko rayante diggante 2019 jusqu'à nos jours ba yàlla dogal tey ñi ko doon xeex nekkoon ci système nan système système ba yàlla dox leen jox leen pouvoir tey combat boobu leen bëgg a porter pour que jéem a génn Sénégal ci kàmb gi mu nekk ndax liggéey amul ku wax te yàlla te xam ne liggéey amul jeunes yëpp am problème kër yëpp yëngu sa yëpp a tas booy dagg nañ seen i jéng dem Nicaragua ndax ñàkk espoir Sénégal kon il est temps que nag combat bi nga xam ne ñoom ñoom ñooñu ñuy suñu président yi di président Diomaye ma koy nuyu au passage di Ousmane Sonko ministre am ak gouvernement am li taxal ñuy reyante ba suñu quatre-vingt-un personnes faatu ci man ma bokkoon ci victime yooyu nga xam ne maay patron Baye Cheikh Diop xale bi ñu reyeen yëmbal ma koy jooy ba léegi noppay guma combat boobu lañ porté moo tax amatuñuy nelaw lekkatuñu yandooratuñu ndax bëgg Sénégal système bi fi nekk nekkan jóge fi kon nan ñu dimbali léegi tant que ñu yokkal ñu liggéey mais liggéey amul liggéey amu fi ah bu liggéey amoon dëgg-dëgg liggéey am kon premier mai bi sama gars yi doo gis kenn du fi défoncé ñëpp seen i kër la ñuy toog di lekk seen i ginaar mais danoo porté combat boo xam ne ñoo ko ànd nag président Diomaye ànd ko président Ousmane Sonko kon continuité bi rek lañu fas yéene suivre bu ndewee demee nag ba lan waxoon gisuñu ko ñoo ni réewu gat sa la te ci gas sa gas sa leen bëgg a dox nag ba keroog yàlla dogal résultat waaw dafay baax parce que xam nga ne fii du suñu kër fii du suñu place ay place la yoo xam ne dañ fee ñëw jóge fu sori di fi daan suñu doole yàgg fee tedd nag doon fi dongo ba doon fi sëriñ ndax place boo fay nekk di dégg booy ba yàgg nga dégg grand ba yàgg nga dégg papa ba yàgg nga dem ba fay dégg maam sëb sëb di daa ko ca dëkk ba kon place boobu tamit am na lu war ci sa diggante ak ñi fi nekk mooy jëm laa yóbbu. foo xam ne dala fay sensibiliser yóbbu la fa nga moomal ko sa bopp pour que bu ëllëgee ak luy man di am ñu xam ne lii yaa ko moom. kon jot nañu yokk secteur boobu ngay wax yaatal ko wutal ñu ay atelier wutal ñu ay place donte dañuy génn suñu tut di ko ci def ba ëllëgee kenn duñu fekk naan nu jógal ndax jógal jógal bi metti na te ku ne xam na ne fii mooy xolum Ndakaaru duñu fi dëkk ala kulli xalin dañu fi jëlee mais bala ñu nu fiy jëlee nag comme li nga wax nan nu wutal ay place jël ci sunu tuus def ca la des ñoom ñu defal ñu ko. loolu daal laa am ci loo xam ne bu fekkee war na noo yokk ci li ngay wax. Alaaji Jànqa waa a ah, comme condition yi rek dëkk bi nu mu mel rek ah ñun moom comme ñooy fay suñu bopp government fayuñu soo foog ñu ñëw pour mën a daw dépasse mën a yor suñu njaboot loolu moo tax ñu ñëw bu ñu toogee tamit loolu du ñu arrangé du neex ak ñun du neex ak suñu njaboot soo loolu tax ñu ñëw tey daa xam nga ku nekk xam na dëkk bi nu mu mel nu mu méttee dëkk bi moom fan nii métti na trop. dañuy ñëw pour taxale pour am dara ak tabaski bi ñu jub si day xaw a métti pour ñu toog suñu kër yi di feetu moo tax loolu rek moo tax mënuñoo toog di feetu quoi waaye bu ñu amoon lu ñu gënal dañuy toog suñu kër yi di feet feet a travailler ñëpp waaye ñàkk condition yu baax moo tax mënuñoo toog di toog si feetu suñu amoon condition comme lii tey ministre mënoon naa ñëw fii wala homme l'État ñëwoon fii xool ñu lu ñuy liggéey mu mën ñoo teg si bonne condition bu baax comprendre mu mën ñoo utal ay matériel wala ñu utal ñu fu nekk ba nga xam ne dinañ mën a yokk suñ koom-koom ak suñ liggéey ba nga xam ne dinañ mën a tegu si condition bu normal waaye fii moom bañ fi nekkee ba léegi yàgg na trop waaye mosoo gis koo xam ne si nguur gi lay liggéeyee déplacé wu ñëw fii xool doomi réewam lu muy def comprendre soo ñoom nag loolu ñun nag looloo tax ñuy rey suñu bopp guddeeg bëccëg amuñ feet amuñ férié amuñ dara chaque jour dañuy ñëw pour dóor si non dafa dañ ko war yokk moom condition de travail Sénégal moom ku ko mën a même même même entreprise sax ñu fay liggéeyee bari na ñoo xam ne seen salaire yi baaxul ñu ñii nañ liggéey si man doon naa liggéey si entreprise fii waaye entreprise ñu seen salaire yi mënuñ ñoo yor yor suñu njaboot weer bu dee boo calculer sa paas ak sa sa sa lu ngay fere yëpp boo ci génnee kon nga ñëw liggéeyal sa bopp moo gën lu mu bon bon fii lu mu fi mën a génnee bala lu la doon fay weer fii mën nga ko fee génnee ñaari yoon comprendre kon nag nga ñëw nekk si fii moo gën nga dem di liggéey weer ah luñ luñ luñ gën a bëgg ñun ndaw Sénégal daal ñu yokk suñu liggéey ñëw dimbale ñu utal ñu créer ñu entreprise wala formation boo xam ne dinañ ñu mën a dimbale ba nga xam ne suñu liggéey dinañ ko gën a mën a teg ci yoon ba nga xam ne ñun doomi réew mi duñ mën a jooyati di dem si gaal wala ñuy dem si géej gi di dem fu nekk dinañ mën a gën a dimbale suñu bopp lool loolu kese mooy problème bi quoi. Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la de notification. pour recevoir nos informations à temps réel.